afa seeni bi cheikh ibrahim radiyallahu anhu ci saylu daf dafa bi mohammed abdullah ibn saydi ibn abdusan nek xasida biñ nekkon dembo te jeexulon ci lañ jëssuat continue a ah, lan la mohammed abdullah wax mi ngi taxawon ci ne mu ne bayyi waqada bihim bal ma'arifi wa tanah bàyyi xuus na ànd gaayam ya géej xam yàlla ya mu wittal leen fii lahum min simaari siqi asal ataay mu wittal leen ci meññet ya meññet dëgg ko ah, la gën a neex ci neex yi wajaada xala ali dana bi bana bi eh, bi bana nihi ah, siyaahun saakib wajaada tabe na xaala ariduna ña nga xam ne ñoo nekk ci maqaama tëddna jige bi baanaani ca baaraanu ya sahaarun ay nit yuy sotteeku ah saaw mën sin ay woy dotteekuy ah, lu ah, ndox maanaam faydu mun minu xaw di boo xam ne dañoo jaxasee ak delloo saat bu mboq ne ma nga sotte ko xam bi dafa jëloon ay baaraamam dugal ko ci ndox mi ñu sotte loolu nag moom itam ba mu duggee agaaya dafa jël nag baaraam yaa ngay sotte ay ndox yu fay dugg sotteeku sotte ko di tuur falaa euh, laa taqisu fi sabili bi xayri walakin taajab fi mabinin ajaaib falaax déet kaay moo xam laa taqisu bul qiyas bay fi sabili xëyri yi yoon wudul yoon nga man caa jele bi faydu bi nga dug ci yoonu keneen bëgg caa jele. bu ko wala walaakin waaye taajat na nga yemu fi mu biini ki nga mo ne kimani ki yi dikki biral kimani te mooy adamam xam-xam ba bi na wax legi deug deug yalla damay wax ne xisay awaan yi boo ko déggul ci awaan yi rek léegi nag xisa bi ñu léegi ci laaj bi ñu laaj ci biir biraan soo xamul ni aadama mañ doon wax du aadamaam ëwalu aadamaam aaxaru ndaxte ëwalu toujours buñ fàtt ne buttoon la mënut a feeñal aadamaam aaxaru lañ wax dara nag kon xilaafatu ëwalu ak xilaafatu aaxiba lañ wax kon nag te xilaafatu aaxir boobu kat ba mu dikkee ca saa yoo mbay foofu lañ tax foo yox moom boo nag moo tax dafa am xalifa boo xam ne xalifa ak feeñal ñu ne ko aadama muy ëwalu xalifa boobu nag ba mu dikkee lam yoroon ca biir daf ko jox beneen xalifa xalifa bu nag ba mu dikkee nag mu am ëwalu aqalu mooy zaayir nag moom mu dikkee mooy aadama yoo xam ne moo dikk feeñal yoo xam ne dafa nëbboon yépp waaye kon nag nit ñi mën a mën nañu xam ëwalu aqalu ak zaayiru ah mënoo ko xam ne te loo gis nag war ngaa dem buñ ne xilaafa rek war nga xam fii la ëwaloo fii la aaxaro fii ca saayro nga xam ne baat bi buñ ne nabi rek nga xam ne fii muy ëwaloo aaxaro saayro buñ ne wilaay rek war nga xam ne fii mooy ëwaloo aaxaro saayro lépp loo xam ne xam nga ko rek muy nit ci boppam sax mi ngi ëwaloo siru aaxaro roxu xel ndax boo boog yaram ah baat noo xol xol ak xel benn lañ su ko defee mu rek taxaw nag di kii ko nag lu gisal róow it dafa am xàqu ruuxul ahsam ak ruuxul qudsi ak ruuxul amin ak ruux bi nga xam ne mooy ruuxul aywaat bi kon nii la nekkee kon nag lii boo ko xamut da ngay wëndeelu ci pay bi wala ñu ne ci wëndeel te doo xam li ñuy wax li lii nag fëtu ba koy maye mooy fëtu boo xam ne mooy gën a fë moo gën a rëy ci putois yi soo ko defee rek dootoo jàppale ci kon nag bàyyi mi la wax ne man nag kii bul ko xalaat fii mu biinil ajaay bi na mu biralee kiimaan yi ah ndaxte lawul mahfuus la ci nekkoon gaa yi xam nañ ko waaye lawul bi àqal mooy umul kitaab ko te nag mooy aadama nag fara umul kitaab nekk way loo umul kitaab su ko defee nag kenn du ko wax nag waaye nag dëgg dëgg yàlla kii ci bàyyi kenn du ko wax waqul yaa ilaahi yaa bi mahabati amit amul wa la amrullahi ahla matal waqul waxal yaa ñoo bëgg a waxal yaa ilaahi ay somb rek amit nag ma rey fi mahabat yi ci bëgg bàyyi waxal loolu wasaaka dee ci bëgg bàyyi la amru laay maa ngi ko giñ ci dundam yàlla alaama taalib yi li gën a neex ci samay càkkutéef ma dee ci bëgg bàyyi yàlla nañ dee ci bëgg bëgg duñ ko jaamu de dañ waaye dee ci bëgg li gën a neex ci samay càkkutéef rek ah ak ñun itam mooy day ci bëgg a bàyyi waxal loolu kon nag ñun dikki gis nga fii boo fi dikkee de oote da ngay tàdd nii ah ah taqayar mi naari maa bi di mufradan yaqinan abu isaqa barullahi taqayar na nga tànn fi naari maa maa bi ci penc cant ya na nga ca tànn tànn pénc cant cant dafa am ay pénc mm-hmm. waaye tànnal ci pénc ya koo xam ne kenn la ca yaqiinan ku la wóor mooy kan koo nga xam ne mooy abo isaaq nga xam ne mooy bàyyi isaaq mm-hmm. baaral ne mooy géej maay bi kon ki nga xam ne mooy géej mayee tànnal abi abo isaaq <laughs> ah bul tànn bàyyi ismail mm-hmm. ah, jam naa ko firi tuuti ndaxte mooy koo xamante ni mooy kii tegu si kii nga xam ne mooy dernier nga xamante ni mooy dernier mooy nga xamante ni mooy eh, niti niti bàyyi niti kooku mooy abo isaaq kon nag yàlla na nga kon na nga wër na nga tànn ko booy tànn tànn abi isaaq pinc yi bëri nañ de waaye tànn bi nga xamante ni ki nga xam ne mooy abu isaaq bari de wa ayu imri in yuki fi urni nahji fa ayumri in afna riqa riqaba nawaib wa ayu imri in ana ban waay ci li yàlla bind yuki boo xam ne bu niroog moom fi urni nahji ci rafetaayu ngir mi ubbi moom abu isa ngir mi jaar ana kan moo ko ci niru ne ma yónent sàngam yónent yi ñaan xeexoo nañ def nañ lu nekk te dara Abu Isa dikk naan ba mu dikkee moom wa qultu laa ilaaha illallaah rek fa qaala al-majuusu wal kuffaar ñoom ñëpp ah kon nag ana ngir mu gën a rafet ngir nit a ah, waxuma ko ku ko ci niru fa ayu imriin ana ban waay boo xamante ni af naa moo jeexal riqaaba na waay bi li nga xam ne mooy dokki histoire yi li ma doon wax léegi xayure yi nga xam ne bañ dikkee xayit jeex nañ kan moo kan moo jeexal xayure yi géer yi géer yi boo demee jàng boo doon jàng boo doon jàng li nga xamante ni mooy documentaire yi ngay gis xay yi nga xam ne moom la mag ñi nekk woon la ko dalee ca ba aadama amee ba tey ñuy reyante reyante reyante reyante bañ dikkee ngir nit ngir nit ubbi reyante jeex ana ban moo indi kan moo kan moo ah, xam nga de man de sama waajur ak ana ku ci ku ko ci kan moo jeexal mus doqi musiba yi moom mi moo tax Ibou Diouf dafa woy benn woy ba mu ko woyee ka ko doon baaru góor sant Mbaw dëkk Fatick ba mu woyee woy ma ne ko woy ban heure la ba mu waxee ma ne ko xam nga woy lu mu ci gént naa bi gént gu ma jaaxle bu doon ba may man la dinaa ko xëy laaj waa kër Seydi Barham gént naa juróom-ñaari mbaam ngoom ña ngay liggéey gaynde maanaam ña nga bëgg a gaynde ña nga topp saaw say kañ si di baraam benn ñeenaa bàyyi ko caw dikk ah, rey rey eh, dégg nga maam rey rey mbaam jël eh, gaynde ga xole doom rey gaynde ga xole doom ma ne ko kooku juróom-ñaar réew mag yi doon xeex ak Hitler xalifa bi yàlla bi dikk réglé leen moom la mu ne ah <laughs> waaye moom nag ba mu dikkee ñoom bu la neexee nga compte juróom-ñaar yooyu ñoo mag ñoo ko jiitoon bu ci jokk ñoom Sénégal xam nga ñoom kenn ku ne ñi ko ndax topp dañ topp France ñeen topp nga xam ne mooy Angleterre waaye juróom-ñaar yi réew yi nga xam ne a mag ñoon ñoo songoon ak ñoo ko nag juróom-ñaari mbaam donc yooyu ñoo dikk doon ko song ànd ak caa xaman ñu dikk nag caa xaman ñoom mu dikk rek faagagal leen moo tax kon nag mu ne kon nag moom mu ne Mouhamad Abdoulaye bu ne fa ayu imrin af naa rek xaaba na waa ibi moo tax il faut nga am histoire tuuti mën a firi li nga xam ne mooy wax yi ana ban waay moo dikk rey leen li nga xam ne mooy xew-xew yëpp xanaa bàyyi xanaa sa waay wa ayu imrihim yana layaali jaalisa yulaa imoma lil mustafa min manaqib wa ayu imri in ana ban waay yan yi boo xam ne moo ngi jeexal àlla yaar yi guddi yi jaali mu toog ana ban waay moo xam dafay jeex dafay toog guddi gi ba mu jeex yu laa imu ma ngay dajale maa lee xam lil motaa ñel ay motaa min manaaqibi ci ay jikko yu rafet ana kan mooy fanaan a toog da dajale da dajale li nga xam ne mooy jikko yu motaa yu rafet ana ku ko def xanaa bàyyi kon nag ma laajal leen wa ayum ri in min haajowoo matu ahmada wa ay imriin lam yan sa li saay ceey waay ceey waay waay waay ma di deen jaraa dig ana ban waay ci góor yàlla yi manaa yi joo ngërëm matu mooy takk amad loolu mooy ngërëm ana ku ko def li takk amad am ñu ko teg ku ko taggee moom kenn ana ban waay boo xamante lam yent du waaj du fataxadan wóla de li saay bi ku xam ne wóor na ku fa ku fa laata ànd lool du ko fàtte ana la kanaa bàyyi moo tax mu ne baa bàyyi Ousmane bàyyi Assane Niass ba mu bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi Babacar bu njëkk waaw ah, Babacar un dénkoon na ko njaboot ga mm-hmm. mun nag loolee nag loo tax ba ba mu demee nag Sierra Leone manatuma toog tànk dañu jël ma ko solo dellu suñu carré ndax man a koy fàtte wala fetal booba bàjje dem na ah léegi xale bi dem génn mu dem jëli ko ndeysaan dégg ah, ah bàyyi eh, baraam jóg ne bu ko fàtte daan ñoom ñaar ñoom ñaar ñu jàppante moo ko bàyyi usani wa ayu imri in ah di nga eh, wa ayu imri in yaa fi at waa ay luyin xad xad xayra imrin ana ban boo xam ne xat xaw ba na asiiba booy yaafiyaan bu yalt xale bu ndaw boo xam ne nekk ana ban boo xam ne moom fekk xale bu tuuti mu jubbanti ko ba mu amee xelu mag ala ko def moom xale bu ndaw amee xelu mu jubbanti ko ba muy jëm ci kilifa ana ko fi def moom bari wa ayu imri in ana ban waay boo xamante ni kaasi bun ma nga fàggu xay xay xayra sera lu muy ay takk xayru kaasi bun fàggu xayra sera lu muy ay takk ana waay joo xam ne lu mu denc lu muy tagg yonent bi li nga alalam yëpp mooy tagg yonent bi ana kan la kon nag li ma leen laaj tontu leen wa ay imrin qaanal aba ida jaalisan waa dama de dégg nga wa ay imrin ana ban waay xaada waman na al aba yi na jaalisan ma nga toog ci dëkkam toog ci fii xacc ñi nga xam ne ñoo sori jéggu leen xacc leen ñëw ana waa Nigéria ana yi ca seen gannaaw ba ca Togo ba ca gannaaw gannaaw ba ci Eritrea ba ci adna ba ci ah ah ah lépp ba ci eh, Siin ba ci oh, oh, dégg nga Pongolon ana kon ko kon la woo fekk mu ngi topp amul waxat dama màppal xis nan kufri tataay kéeféer loolu kataay bi ki dul ay soldat rek ko fàtte moom moo toj tataay kéeféer te indil saxoon ay soldat ana kéeféer bi kan billaay bàyyi gis moo xam ne waxoon dëgg de waaye waaye yelante nit ñi taalee bàyyi seen boppam lañ war a jàngal ñu xam bàyyi jaloore yi yëpp kii mooy borom jaloore joo xam ne jaloore joo xamante ne kenn jël def ko léegi seetal te kat wax na ko de fa bii yet mool jaww arsi man mi maa yëkkati ndëng moo tax bi mu dikkee nag ci la ci la li yaa ay droit la wax xam wax dañuy wax dañuy dañuy fen rek jàmm jàmm ji dugg ci àdduna ba mu dikk ki ko indi toj yëpp kii réglé yëpp bu yem ah ñu ne ko waaw yow kon mu ne bu ngeen ma tontut ma tontu ko ma tontu sama bopp ah andil naa leen ayu ayu ayu ayu juróomi juróomi question kenn tontu dégg leen ma huwa seyxu seyfu xaq ah mutadihul xudaa wa akram wa akrim bii min waaseel jóodi waay huwa kii nga xam ne moom laa ne laaj ci tontu leen ma xam naa ko a cheikh mooy Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima ba sayidul xaqi janta eh, jaasi xaq moom Mahdi jaa ci biti dafay waaye jaa jàq xaq benn jaas bi am xam nga dañuy wax sayful islam mooy Mahdi waaye sayful xaq mooy Cheikh Ibrahima <laughs> ah woo Cheikh ah say mu tadiwul ko daal kii mooy ci mooy leeram bi kon nag man ne kon nag bañ na kon ndax yaay Mahdi yi mu ne ah déedéet waaye jaasi jaasi sama ah kon nag def wan dëgg de ndaxte moom moo moo réglé ci biir ci say bu àq ba nga xamante ni ma xaqaay ki yëpp tegu ci dëkk mu génn ak leer li nga xam ne mooy saayir nag daa xam ne waa ci saayir waa turin yéeman ak tëdd bi ci moom min seen jooju muy koo xam ne ku yaatu may la mm-hmm. waaye bi koo xam ne may kat la maa yéem bi ko yàlla may imaamu taqiyun mustaidun mujaddidun li diinil xudaa raxamal baqaatil akaasib ñu ne Maamar Abdoulaye nga ne seen sëñ Cheikh mooy kat mu ne imaamun kii mooy ilimaan taqiyun bu ragal yàlla ah ini jaay ko li naas xam nga bu nit ñi doon seetu sax naasoo naasoo xaaxool laaxool jëbaloon mëlakoon mëlakoon ñoom waa naasor duñ leen jiite kan moo kan moo leen jiite ci péebi yàlla bi xaar xam nga kon ñi waa waa naasor ku ñu kon na mëlakoon kon nag kan mooy mëlakoon du mooy mooy kii kon na kii lay def ilimaan bi ah Ibrahima waaye koy kii mooy xalil kii mooy <laughs> mooy ilimaan naasor waaye nag ndax lii ko xamul àq mën na ci dugg moo tax nit ñi fu ñu jëm gannaaw dañ dikki wéy di loo leen te wali ñoo mën a xamal li xew li alquran kon nag ini jaayakul naas yi waxoon na suñ ini jaayaluka naas piem naaso ñu nekk ku man kenn mën ci kenn mënu fee jiite nit ñi njën ci xàqu lu may moom mii donc kon nag moo tax yow boo jiite élimaan joo topp nel fas naa yéene roy ci élimaan waaye bul wax na élimaan oustaz Guèye déedéet élimaan rek ndaxte yëpp ay luwaat lañ ay takk ndeer yi ma jóg ak mëccoo ñoo fi yem képp ilimaani aalim du jàng ba xam faqi ñoo ci am képp xamuñ xamuñ duñ ilimaan lii mooy tawhidu imaama na nga wéetalee xaq xaq xaq bi wéetalee ko wilaaya bi wéetalee ko nubu nabi wali bi foo lay la tufali amr saniyan imaam bi nañ ko wéetalee ndax mas ngaa gis ku nangoo wax ne benn ilimaan rek am mën ko gis ko tawhid tawhid imaam mas ko dégg te alquran mooy wax lépp loo xam ne xaqiqa alquran mu ne ko wax kon nag bële woo ma nii teel sa fokkat ata kooku leer nañu kon nag kon nag benn moom dikki leer la kon xàqa ma ko allahu wal waliyu laahu mooy waliyu kon leer na kon xàq ba de kon xàqat wilaay leer na ili jaayu ko imaan la def imaama kon keneen nomination imaama bi leer na nañu moo tax inii jaayul ko jaayul man fële aadama dañ ko indi jaaylu ah. fii nag jaaylu ko ba tey moo fi nekk côté benn kii benn benn dañ ko def moom jurum ko ah. moo tax bii moom day day kay cëpp la ah. dafa kay la waaye xamuñ fu ko ñu koy liibee sol kat nañ ni dem na soo jot déparé dem na fii waaye waaw soo jot kan mooy ndeyam kan mooy bàyyi bal askan la bokk <laughs> moo tax gis mbir yi da ngay dem ba fooñ ko fa mu sosoo nga mën a xam nam taxawee waaye soo xamoon nam sosoo xamoon nam taxawee dikk na ca wax dangaa rëy làmmiñ waaye rawoon nit ñi ah yàlla ndaqaan na xeeral ndaqaan na moo fi nekk mën a ndaxe rek waaye mbir maa ngi nii de wax dëgg yàlla njàng jàng ji nga téere xasi téere yii dëgg dëgg yàlla ji nga ji nga ji nga woy yii ma eh, kii génn ko xam gaa ñi génn ko dëgg dëgg ni jamono mu ngi doo jot wuy yaa ngi nii leer na nañ ñi tey la Muhammad Abdoulaye waxoon waaye démb boo ko waxoon duñ ko mën a dégg kon nag kii nag imaamun la taqiiru ku ragal yàlla mustaidun kii mooy borom koo xam ne mooy borom borom préparation dafa préparé kii dafa waajal boppam mu jëddidun moo di ki beesa li di nit ku daal dina ñubbi moo di ki ko raxamal bokkaati même bu naqaree saay-saay war akaasi bi ak akaasi bi yoo xam ne ay kàccoor lañ ak lim leen naqari naqari naqari bi mu dikkee moo beesal dina yi beesal boo xamante ne moo tax bàyyi jamono wilaay ci la wila ni wilaay amee doole ni nga xam ne ci la diina ji amee doole sariha tasaaroo tasaaroo xam fu ne fu nekk dëgg-dëgg yàlla lu ko jiit yombul ndaxte booba jamonoy bàyyi lu ko jiit tukki yombul boo bëgg a dem kii eh, gars yi dañ lay borom dañ lay rey ci yoon rey ci yoon bi tukki foo bëgg a tukki réew moo bëgg a tukki ah am na ay bànneex taxaw di rey deer waaye ba mu dikkee ca la frontière yi ubbeeku ci la nit ñi mën a tukki dem ah utaal gi wax ko de moom Abdoulaye ma woon Abdoulaye ma ko wax fa ma waxi foofu firaaqi anjahu ma waxi wa masabu fi diini alal masaayid waaye waaye ma woon Abdoulaye waaye waaye fa ma waxi foofu taxawaayu Cheikh Ibrahima firaaq ci dëgg an jëw mawqifin moo gën a antu ci taxawaay najaa mooy antu e, a xam nga antu de nangu maanaam li gën a li gën a réussir réussir mooy antu li taxawaay bi nga xam ne moo gën a réussir ci taxawaay mooy taxawaay bàyyi an jëw mawqifin moo gën a réussir ci taxawaay wama sa boo ngir mi ubbi fi diini ala masaay bi moo gën a dara moo gën a kawe ci demewaay yëpp demukaay yi dem dem jaare waay nit ñi daan jaar bi gën a kawe ci jaar yaay jaar waay yi jaar pour dugg ci dini mooy bi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima bi mu muy ngërëm bi wala ayba fi aqwaalihi wa fi aalihi siwa jamiha tab an li alaal manaqib wala ayba gisuma benn sikki waay sikki sikki fi aqwaalihi ci ay waxam wa fi aalihi ak jëmam taatu duma tit bi ma yitum bi maanaam nga doon nga bëggoon tagg nit gën a yembaliwaat tagg ya mu gën a gën a nga ne man de gisuma ci benn sikk lu mooy daal waxam ya ak jëfam ya nekkul ci waa jamia lu mooy dafa boolante tabe an ay tabe maanaam waxam ya ak jëf ya day dafa boolante lépp loo xam ne mooy habitude mbaax loolu dama ko yàq xam nga loolu yàq ko waxam ak jëfam la ko yàq daal waxuma jibam du dara lu mooy bu waxee lépp luy xet luy jikkoy baax la la kër li ala manaqib li gën a kawe ci ay tànne loolu la Ibrahima la indil waxam bu la indee jëmam bu dikkee daf laa yéegi nga dem ci naa xanaa mooy jikko yu gën a baax yu gën a rafet wala ayba fii wala ayba fii min xaaji xayra annakoo xaalaa najil Moustapha lam yu say xaalaa wala ayba am benn sikki nag fi maraay yi ci ngërëm la xayra annuhu lun moom nag lam yu saahib du ànd ak kenn xayra najil Moustapha lu ma ngërëm Moustapha la koo koo dégg na ànd ak ma nga ànd ñu ngi jaar ci ngërëm Moustapha kon ko ànd ak bàyyi ci ngërëm Moustapha bàyyi ko ànd ak moo man koo na ànd ak moom maa nga ànd ak ci ngërëm Moustapha loolu de mooy moo ko moo ko moo ko jafeel la nangu naa ànd ak ñëpp waaye na koo dégg mu ànd du nangu ànd kenn koo xamante ni lam yu sax it xayri na ji ala xayri naa ji Moussa lu gën a Moussa kon nag ah kii ni mel ni neex naa ànd ak de waaye ak a jafe ànd moo tax mu ne sama àndoo ah, moo gën a jafe mel kiruus ndaxte boo dikkee rek tarbiya ah, yow xam nga da nga yemal yow ma ñu daan tarbiya ay fukki at ñaar fukki at ñu dem ba da nga am fukki at ak eh, yàlla ñu dem ba wi ay weer tey na nga dikk tey ay fan rek ndax yombalal na yoon yëpp. ndax da nga am ñu daan tukki ay kii ni nga tukki avion boo xamante léegi mën ngaa xëy léegi dem fa koy dem léegi tey mu yombal la nga yomb bu pare xàdd nga dëkk yam mag ñi nga xam ne ñoom daan ñu daan dox ñoo ko daan dox ah moo nañu mag ñee a man de ah kon nag boo dikkee yabaate ah da yàq de day yàq liggéey kon nag moom day bokk yàq ah amawlaaye inni daari on mutasalilun maridu li soyil mubtala bil maayib ay yaa mawlaaya ay sama yow sama kilifa yow Cheikh Ibrahima inni man Mouhamad Abdallah daari on maa ngay torxu mutasalil maa nga nooy népp mari duñ ko feebar laa lu tax li sa ay ndax samay jëf yi almubtala yi nattoo bi ma bi maa bi sama jëf yi yoo xam ne maa nattoo jëf yi bon lii day moom daal indil sama jëf yi dafa laa ko ay ay wama lii aw ma ilaa an na ni lu may naka ma nag murtajin ku yaakaar laa bi ko caw amal dara nag lu ma yaakaar naa la wa innaka yow nag laa tur jaa def la yaakaar bi xaatiri xaay bi xaatir boo xam dafay dafay perte xaatir bu perte la xaatir kuy toog ba xaatir ne ah man yaakaar na ne bàyyi su ma ci dina daa mucc kooku du perte ura ji maa ngi yaakaar ittisaalan ak jokkoo maa ngi yaakaar jokkoo lan fisaal boo xam ne réewante ko di di sa nga yësul boobu boo xam ne koy da koy jaxase bikum ci yéen man maa ngi yaakaar naa jokka jokko bokkan lu ma am lu ma cay jaxase bikum wa dama nan ak warlu min jëmin masaa bi nga nga garanti ma nag mbooleen musiba bu ma dara ci waaye waaye ñu ñu ngi ni kon nag ñu ngi tey ñu ngi firi téeri al Muhammad Abdoulaye bi taal nañ si loolu nag ñu itam nañu war loolu ñu jokkoo jokkoo bu doon am jaxase nga garanti ñu ba benn musiba dañu daal mooy corona wooyu leen en ce moment ngi làqu bi ma xaaka sa jëf ala way sii min sëlbin yàlla buñ ma dégraté wal balwaa ak nattu woo sooy awaaxi bi ak ñaam ñaam mujj maa ngi lay ñaan ci barke sa barke yàlla ma yàlla mos yàlla yàlla mos ci loolu bu buñ dégraté wu muy sëlbu balwaa mooy nattu ak soo awaaxi mujj gu ñaaw yàlla yàlla mosal kon nag ñi ngi bëgg a noddoo ñu taxaw foofu de hmm.